برهام باء وراء ألف ثم ها ميم مجل فيض تيجان جخن نينان بسم الله يا همة الشيخ أودر لنا بهذا المطر والتعطفي بنطرة تأتي لنا بصبايا salaamaaleykum mboolem réew mi mboolem Sénégal waaye rawatina baykat yi maa ngi maa ngi nuyu ñëpp di leen yéene jàmm ndax nit ku nekk am moom la ko lay fay yéen daf na sa yéen jëla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo wax ne innamal a'maalu binniyaati maa nawaa ku ne rek la moom lay am gis naa nag bu baax yàlla may nañu nawet bu baax mu am na ndox ndax mi bëri na ngóobe gi itam wax dëgg yàlla am na yàlla dimbal nañu ci dugub dimbal nañu ci lépp ci gerte am nañu yoon sax sakanut waaye war nañ ñoo tant yàlla ci li ñu may te duñ ci dara te du moom rek mbaax rek moo tax ñu ngi koy gërëm ci loolu ñu ngi koy tant ndax moom yërmaandeem du jeex ay mayam itam du jeex ñu ngi sant yàlla ci loolu ñu ngi sant yàlla ma ne moom mi nga xam ne moo wax ne moom mooy joxe ñu ngi sant itam gannaaw buñ sant yàlla ñu ngi julli ci yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax moom moo wax ne yàlla mooy séddale yàlla mooy maye waaye man may séddale kon ñu ngi koy gërëm ci loolu bon séddale ñu ñun baykat yi ci ci at mii naa ngi gërëm itam président bi muy mag yi ndaxte lépp lu xaw ci rek nañ ko gën a may président bi su fekkee ne lu baax la ndaxte mooy yëpp yëpp yëpp moom lañ ko jox kon lu baax amee war nañ ko ci gërëm bu baax nañ ko ñaanal yàlla mu dëgër bu baax te itam mu am baat te mu am yéene ju rafet daal ne na ko yàlla saxal maa ngi dellu di gërëm béykat yi dina wax ne sant leen yàlla nañ mbokk ñun ñëpp sant yàlla ci lim ñu may sant ko te jaamu ko te buñ ko sakkal bokkaale te di ko ñaan nag daay man daay man daay man mu di ñu dimbale daay man mu di ñu xéewal ñuy jox ñuy sant yàlla te buñ ko sakkal bokkaale loolu rek la wax ne nañ ko def nañ ko sant te buñ ko sakkal yàlla ñu ngi lay sant bu baax ñu ngi lay sant bu baax ci wax ak jëf ñu ngi lay sant bu baax ci suñu xol tax suñu yéene buñ mënta wax itam buñ mënta wax ñu yal na yàlla dimbale ñu sax sax ci ndimbal daa iman ñu ngi liggéey man nag maa leen di gërëm yéen béykat yi ndax lu tax dama gis ne nangu ngeen a liggéey te ma gis ne li ëpp ci dundab réew mi mooy wala réew mi yëpp wala àdduna bi yëpp yéen béykat yi yéen a ko amee ñun béykat yi ñoo ko amee bon ndaxte ñu ngi bay dugub bay mboq bay gerte bay lépp lu nit doomu aadama soxla lekk te kenn mënut a dund te amoo lu ñu lekkoo ci lu ñu bay te béykat yi ñooy bay ko ñoom ñoo xamee réew mi maa ngi leen di gërëm itam ci li ñu xamee jàmm li ñu xamee jàmm dégguma benn ba ba fenn boo xam ay béykat ñoo jóg di def nangam di def nangam loo xam ne loolu maa ngi leen ciy sant maa leen ciy gërëm wax dëgg yàlla ndaxte jàmm yonente noonu talaayu tam nit ñi ñoo xamoo ni bañ a jart duñ ci jàmm su di ñaan yàlla ñu jàlleen ko jàmm te béykat yi gis naa ne am nañ jàmm te nangu nañoo liggéey te nangu nañoo jàmm yàlla te nangu nañoo jàngal ko yàlla kon jàmmi ci wàlli dund jàmmi réew mi ci wàlli ñaan baykat yi kenn ëppalewu leen ci loolu tax ma di leen gërëm loolu ma di leen ñaan saxlaan ci loolu bu leen tudd kenn nag xanaa bu ngeen ñaanoon te ñàkk tudd bu ngeen eh, bàyyi ko ci sant yàlla sant yonent yi yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ngeen teg ci président ndax mooy jiite réew mi ndaxte ku jiite réew lépp lu baax dañ la ko tudd dañ la ci tudd kon ñu ngi koy gërëm ñu ngi koy wax ne nag bëgg nañ ñoom bëgg nañ doon lal bëgg nañ dollal moo ñun ci réew mi lañ dëkk nangu nañoo liggéey incha allah nangu nañoo jaamu yàlla waaye li ëpp ci nag ci réew fi mu nekk nii moom xam naa du ko yëg sax képp koy déposé kayit teg ko ci barab di ko di nekk muy résultat ya dafay bu mel ni nekku fi loolu de bëggoon naa mu bàyyi ko xel moom président bi ndaxte lépp moom la ko yàlla xisaab déposé benn kayit soxla ko ñu war laa tontu ñu nekk ba fukki weer ak ñaar fukki weer ak ñett fukki weer ak juróom man de wax dëgg yàlla bu doon man danaa ko toppatoo te xam naa ne moom daf ko yëgut maa ngi koy yëgal maa ngi koy fàttali ni ko mm, biri yu bëri ci ñoom man mi xam naa ko am naa soxla ba dee si yoo xam ne doyu yoo xam ne am na fukki weer ak ñaar xam na doyu yoo xam ne fukki weer ak juróom te tontu amut te loolu daf maa jaaxal jaaxal jaaxal ba mu jëkki daal ndax loolu nu ma la nekkee yow loolu man xawma ko maa ngi ñaan yàlla yàlla dellu di dimbale bu dëgerte gi bu mu des mukk mukk mukk mukk mukk yàlla na yàlla dimbale ñu ba gerte gi bu mu des muy rek feeg bu mu àgg téeméer wala bu ma lu ko lu lu soob yàlla ñun ay liggéeykat lañ te incha allah duñ nekk bay mukk benn yoon te mbay dafa métti te itam métti mi euh, dafa xaw mel ni lu salte ndax balaa nga koo jot rek da nga futteeku dugg ci bi dem ci suuf si jaaxasoog ndox mi jaaxasoog suuf si jaaxasoog trim bi wax dëgg yàlla di nekk bu résultat yi xamee bule la ci kenn pëlee du du la neex maa ngi wax góor ma ne ko man maa lay sant si lii ma nga am nan fexe nga ba gerte gi dem ci juróom-benn bukk ak juróom waaye loolu may ñaan yàlla yàlla na sax yàlla bu mu wàcc yàlla bu mu wàcc yàlla bu mu wàcc yàlla na continuer di avancer yàlla na continuer di avancer yàlla na continuer di avancer yàlla gi sax yàlla na yàlla na sax prix gerte bi yàlla na sax prix bi lépp lu baykat di bay te bëgg mu jar yàlla na sax yàlla na sax te yàlla na barke ci ñu loxo yàlla na réew mi barke yàlla na nguur gi ak ñi koy jàppale mooy président ak ministre am ak député am ñoom ñëpp yal na leen yàlla dimbale taxawu leen teg leen ci yoon ñu lu bëgg ci loo xam ne dafay dëppoo ak jàmmi réew mi yal na yàlla réew mi juboo yal nañ bëggante yal nañ nawluwante yàlla bu leen bu leen kenn xeeb yàlla buñ xeebante yàlla buñ tooñante réew mi yëpp béykat yi maa bu leen tooñ bu leen dimbale ku tooñ bu leen yaakaar ku ku yaakaar nag yàlla dafay nangu liggéey dafay nangu liggéey te bu mu yow maa ngi jël ci leen di leen wawaat ñëw leen liggéey liggéey leen te yaakaar la yàlla liggéey leen te yaakaar la yàlla te wàññi waaj wàññi waaj liggéey rek maa ngi lay maa ngi gërëm di leen ñaar di laa am lu ma leen digal di laa am itam lu may ñaanam pour yow mi pour mbay mi dox mbay mi dox prix yi dox mu wàññi ko mukk loolu benn mu ma hitteel mu ma gën a hitteel bu mbay mi wàññi bu bu mukk mukk mukk maa ngi fedd li ma li ma wax léegi gerte gi daal bëgguma mu daanu bëgg naa mu jëm kanam daay man li may ñaan nag nit ku nekk sañ naa ñaan yàlla mu dimbale ko ca lam nekk ba man koo jëriñoo ba mu am dimbal baykat yi yëpp lay xoo góor ak jigéen mag ak ndaw ku sore ku jege ku xam ak ku ñàkk ñoom ñëpp nañ dajee wala ñuy benn benn ñuy ñaan yàlla kenn ku nekk lam man bu xëyee na ko def julli si yonent yàlla moom sallallahu alayhi wa sallam lu mu néew kenn ku ne da ko def téeméeri yoon béykat yi buñ paree nañuy jàng alquran daara ju nekk ci xat ci ci mboolem réew mi nañ jàng lañ man suñ ma a jàng kam baax na mën jàng yidit mën waaye daal nañ sax ci ñaan ak julli si bi pour bañ pire gerte bi bu ko kenn daane bu ko kenn mën a daane ak ku mën a dox ak nu mën a mel ak fu mën a me nañ xam ne gerte gi mooy suñ doole ti ñoo ko liggéey te nit yi jàmm lañ bëgg nañ yow yàlla mi nga xam ne yaay boromam ñëpp te yaay joxe te ñun teel man mooy séddale bëgg nañ ñu dimbale ñu ba nga xam ne prix gerte bi daanu nit ñi defee nag liñ man mooy nañ julli ci Yonent bi nañ ko bëril te nañ ci sax nañ jàng alxuraan nañ ko bëril te nañ ci sax yéen yéen béykat yi yëpp ak sama bopp mi maa leen di xoo ñuy jàng alxuraan di julli ci Yonent bi di ñaan yàlla prix bi bu ko kenn mën a daane bu ko kenn mën a daane bu ko kenn mën a daane ci nit ak jinne ku mu mën a doon bu kenn mën a daane pee bi ku ko bëgg a daane nag loolu ci fekk yaa ko yaa ko def ku bëgg a daane gerte gi ak suñ kaamil yi ak suñ ñaan yi laa duñ kenn waxuñ kenn dara waaye képp ku dox ci wax daane ko lu loolu daal na nga xam ne yaa ko teg sa bopp baykat yi ñëpp lay xoo yal na yàlla dimbale yoom yal na yàlla naat yal na yàlla jàmmal ba kii am xam ngërëma yàlla ngërëmul yonent yàlla ma sallallahu alayhi wa sallam ngërëmul tim sëriñ Baba Maas Ibrahima salaamaaleykum wa rahmatullah barhaamu baun waraun alifun thumma haa miimun mujjal faydu tiijaan jox ñu ñuy